Diouf Guy Marius Sagna ak compagnie mu di ñoom Assane Diouf Clédor tey jii ca la janoo ak doyen des juges Samba Sall l'observateur moo ko bind ba wax ñu waxtu wan la war a doon dix ci yoor yoor gi yéenekaay bi nee nañu ca lay door altine ñaar fukki fan ñaar ak talaata ñaar fukki fan ñetti ci weeru février ca la ñu leen téye woon mandat dépôt woon leen ndax tuumay tuur bale ordre public bi ak i nasi pexe yoo xam ne mën naa joo réewum Sénégal ci fitna journal bi nañu seeni avocat dinañ leen sàkkul seen audition tey jii ci lay tàmbali mu di Guy Marius Sagna di Assane Diouf di Clédor Sène Birame Souleye Diop ak Abbas Fall lii quotidien nañu ñoom ñëpp tey jii ci la ñuy gisee ak doyen des juges waaye jege nañu lool ab liberté provisoire en ki dina moom it xëyi xibaar bi mu di ñoom Guy Marius Sagna daanaka léegi tey ñu génn ci kaso bi Ousmane Sonko moom la l'Observateur xëy génne ci xëtamu njëkk boole ko ki di jàngat aw doxalinam yéene kay bi nañu moom Ousmane Sonko ngi ci contrôle judiciaire waaye terewul boobee ba léegi mi ngi nekk ci di taxawal ay alliance politique yamu ca la mu ca teg nag mu di dem di seeti ay politiciens yu fi nekkoon loolee mu indi jaaxle jaaxal ñu bari ci nit ku ne dafa bëgg a soppi système bi système démocratique bi ci réew mi Le Quotidien bind na ne Macky ak ñi mu àndal ñu di waa Benno Bokk Yaakaar bëgguñu kenn di ci sensé lu toll ne tarfatal ay ni journal bi xamal ñu ne lu jege ñaari semaine ginnaaw li fi xewoon mu di fitna ju amoon ci réew mi ba ay bakkan rot ci keroog samedi leader yu Benno Bokk Yaakaar yi daje nañu ci njiital seen njiit mu di président Macky Sall la ñu tënke ca ndaje ma moo di danañu booloo taxaw doon jënn jëm ngir défendre république bi défendre nation bi défendre askan wi Tine jiital alliance démocratique penco bokkit ci coalition taxawu Sénégal di ñu wax ci xët mu njëkk vox populi ne ñi ci nguur gi mu di ñi ci pouvoir bi ñu benn yoon seen ngemb dañu ko yorama rek ci defarwaat ca la ñu nekk waaye yàggam-yàggam dañuy dellu siwaat ministre Abdoulaye Sow di xamle ci xët mu njëkk Les Échos fi woon du fi amaat ku ñu dóor danañu fay duñu toogati mukk di faste suñuy loxo ci jamono jooje réew mi quotidien bind na ne fële ca jeunes ya demoon ca mairie ba doon ko caxat-caxate saax-saaxee ko maire bu Ndar di Mansour Faye nee na baal na ñëpp toppewul kenn dara ndax topp fitna dafa yokk fitna la tribune ñu teg na ci joxe xalaatam defi proposition ci nan la ñuy def ba wutal jeunes yi ci réew mi emploi mu di am xëy ak ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk yi président Macky Sall fas yéene dugal ci wàll woowee ci weneen wàll journal Les Échos mi ngi ñuy wax ne wax ji ñaar la nañu waa APR waneeti nañu seen bopp ci meeting bu ñu doon def démb ci Pikine yëf ya dafa far sax mujjoon jaxaso ba amoon fa ay responsable APR ak yu Benno pagas génn na fa ay xeer ak i siis lu nekk gaa sànnante nañu ko fa ba am ñetti nit yu ca jëlee gaañu gaañu ba mujjee l'hôpital lépp nag doonoon ci teewaayu ministre Abdou Karim Sall Awa Niang Pape Gorgui Ndong Daouda Ndiaye ak maire bu Pikine di Abdoulaye Timbo mi nga xam ne moom bi fitna ji tàmbalee jolli ca la ko rocci rawale ko la mel ne ku naan ñu ñoom ñi ci mois présidentielle gi bu ñu xamoon li leen di yoot danañu bàyyi la yoot a action noonee ko bëgg a li ñuy wut moo di doole ju ñu mën jàmmarloo ak Macky ko nguuram moom président Macky l'observateur nee nañu bijoutier yi wax nañu it ci li président Macky waxoon keroog ci discours à la nation bi mu amaloon ñetti fan ci yor avril ne booba moom président Macky Sall dane woon bi jógee ca Sabadola danañu fexe ba am luy des ci réew mi ngir bijoutier réew mi am lu ñu mën di liggéeyee Ibrahima Niang mi jiite association gi leen jaboote ñoom bi bijoutier Sénégal yi ne ñu bi président ma ki Sall waxee loole ak léegi ñoom dara lañu ci gisagul comptoir commercial de plomberie